Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. xarit yu ni seetaan à travers Equivox TV beneen numéro Vox Art tey ma dalal koo xam ne moom laay wooye le meilleur le meilleur nag buñ ko waxee sénégalais yi xam nañ ko du ma ne ndaanaan parce que sénégalais yi léegi jàpp nañ ne ñëpp ndaanaan lañu mais kii mën naa ne c'est le meilleur donc di koo xam ne wax dëgg fa yàlla Euh, ku Sénégalais yi respecté la ndaxte moom nag dafay koo xam ne day artiste engagé donc du bàyyi benn affaire boo xam ne injuste la injustice la wala mu leneen kooku mooy Mame Goor Diazaka Mame Goor ci loo mais maa ngi sant di nuy képp kuy xool télé bi di xool euh, site bi quoi euh, Vox donc gis ngeen ko Mame Goor Diazaka de son vrai nom Mame Euh, ginnaaw boo nuyoog sénégalais yi tey ñu seetsi la ci émission Vox Art ci Equivox TV tey ñu bëggoon a xam sénégalais yi duñ nekk kan mooy Mame Ngor mais tey Mame Ngor actuellement ci lan la ne. non maa ngi nekk sama liggéey di liggéey maa ngi def ay concert di jouer et puis génne naa album yàggul ci période màggal bi mooy bi ma woy Makarimal la donc euh, en même temps tamit maa ngi am sama liggéey beneen boo xam ni. bokkul ak musique boo xam ne maa ngi koy def. mais tey ñu wax ci wàllu musique Mame Goor ñu gis début Mame Goor ku ne xam nga Mame Goor bu njëkk manager la woon ñëw dugg ci musique ñëw marqué empreinte am xuus ba tey am place bu am solo ci wàllu musique sénégalaise lan moo lan moo lu tax nga jékki-jékki génn ci management dugg ci musique xam nga ñu mën nañ wax ni musique ci suñu deret la nekk parce que man ci famille bi ma bokk ñëpp ay waykat lañ tey jii boo xoolee ñi ma bokkal boo xoolee xaar mbay ma jaaga suma bàjjen la rakk la ci suma papa soo da maama Fall yaayam ak suma yaay ñoo bokk ndey ak baay donc ñun ci famille waykat la ñu bokk donc mun nañ ni suñu tàmbali dañu créé dañu amoon benn groupe bu tuddoon Bamba ji Fall donc comme dañu bëri woon mënuñu woon nekk cinq wala six donc ñu ne nañ jël quatre yi ñuy nekk ci groupe bi carrément après man ma nekk manager bi mais en même temps refrain yëpp boo xoolee ci album yi ñu daan def yëpp presque man maa ko doon def donc nag bi ñu demee ba ma am rupture ma ne pourquoi pas ma def sama carrière solo yàlla dogal ma def sama premier album muy Jazaaka mu génn Sénégalais yi ko et ma def carrière et puis voilà boobu ba léegi ñu ci musique bi depuis mun naa wax ni depuis boobu léegi am na vingt ans. am na vingt ans ñu gis depuis boobu léegi am na vingt ans nga génne album nga jaay dégg naa période boobu bokk nga ci ki jaay euh, plus d'album. ci Sénégal ci année boobu ñaata ñaata exemplaire nga jaayoon. ama période bi ñuy génn ñun boobu pirate amul nii internet bi développé kul donc CD dañ ko daan jënd bu album bu daan génn Sandaga gars yi dañ koy rang buñ ne Youssou Ndour day génne wala Omar Pène gars dañu dañuy ñëw di fay seen xaalis une semaine ci Talla Diagne avant album bi di génn donc ñun ci période bi nga xamee ni ci période boobu noonu la suñu premier album boo xoolee Jazaaka presque jaay nañ ci ay quatre-vingt mille exemplaires parce que boobu cassette la woon boobu CD sax tàmbaleegul bari trop cassette la quoi. donc nag kaset bi yàlla dafa dox ni dogoon na trop euh, mu nekk waay boo xam ne dafa ñëw nekk hymne ñëpp di ko way xam nga parce que tamit Diazaka xama nga dafa am baatin bu si lalu parce que Diazaka waxi Serigne Touba la parce que Serigne Touba moom moo ni Diazaka yaa xilu Ibrahima mawlaaka xayral jazaa mu naa daareeka awlaaka Serigne Touba def ci tagg benn taalibeem bu ñuy wax Cheikh Ibrahima Sarr Diazaka dafa liggéey Diazaka veut dire merci boo nee rek wax nga merci la nee nañ moo bu tuuti la mais tubaab du ko wax ku liggéeyul donc am na baatin bu ci laxasu boo xam ne Jazaka daal bi mu génnee mën na ni ibn la ba pare mu dajeeg mu sama sama premier album mu ngi génn 2001 album bi mu génnee période boobu Sénégal ak Sénégal qualifié coupe du monde su Lions yi gagné Lions yi si boppam dañ koy woy population bi yëpp di ko way te pourtant boobu am na ñu génn woon ay woy way ko Lions yi mais bu match bi jeexee au lieu ñu woy woy yi gars yi woy gaynde yi mais Jazaaka la ñuy woy donc loolu moo gën a def euh, moo gën a propulser euh, morceau bi. ok pour que ñoom ñu mën a utiliser aussi le mot merci bi. ñu dem ba benn moment xam nga boo xoolee armée bi di ko jël di ko jouer le chaque 4 avril da ngay gis léegi armée bi dañuy dañ koy jouer quoi dañuy dañ koy jouer quoi donc nekk na loo xam ni xam nga. dafa des si bopp sénégalais yi quoi man tey ji sénégalais yu bëri ba la laajee maam góor sant man ñu la ko wax jazaak rek la ñuy wax. Ah, c'est ça c'est ça mais euh, man premier jour bi may xam sa sant sax dama ne eh kon maam kon kon moom nii la sant ok mais tey période boobu nga jaay plus de quatre-vingt mille exemplaires mais léegi ñu gis ne mënut am na artistes yoo xam ne sax mënatoo ñoo jaay mille exemplaires. mille c'est tout à fait problème la parce que xam nga ñu bëri nañ jafe nit ñi ñoo jëndatul CD nit ñaa ngi jël ñu ngi consommer musique bi de. bu baax mbéykat yi fi gën a siiw nag ñun ñëpp yaakaar ne ñoo ak ñoo xew pour ñu jaay mille CD problème la parce que léegi technologie bi moo avancé internet tey ji da ngay dugg si internet bi ci à tout est ce que comprendre la xam nañ sax dem jënd CD di ko dugal seen oto ñu bëri bu ñu sa CD dañ koy jënd pour jàppale la parce que xam ni def nga ay journée studio nelawoo affaire yu demee noonu karab-karab moo tax ñu koy jënd mais léegi soo xoolee gars yi presque jëndatuñu CD moo tax gisoo gars yi sax bu ñu def CD dañuy def CD def clé USB parce que oto yi lu bëri ñu bëri moom la ñu utiliser est-ce que comprendre la am na ñoo xam sax dañuy dem ba carte mémoire la ñuy utiliser donc moo tax ñu bëri dañu jàpp ni piratage wala lii mais technologie moo toll foofu voilà mais mais tey est-ce que euh, comme piratage moo toll foofu yéen ñi nga xam ne ay grand ngeen ngeen fekkaat fi yéen tamit beneen grand parce que mën naa ne yéen deuxième génération ngeen à part ñoom Youssou Ndour Omar Pène ak yooyu tey ban part responsabilité ngeen mën a souligner ci loolu. ci non non mais xam nga ñoom yëpp affaire bi mën naa ne du fotu kenn parce que ñi ñi fi nekk tey jii ni gis nañ ni war nañ mën a teg loo xam ni artistes dañ ciy gis seen bopp dañ koy teg parce que nit jaakaar noonu. ñooñu dañu béy seen waar Youssou Ndour Omar Pène Ismaïla Lo xam nga grand yi job nañ. mais ñu gis ne aussi. Euh, am nay jamono nga gënoon a concentré wu ci woy bi mais léegi maam Ngor dafa xaaj woy bi léegi ci ñaar mi ngi woy mais dugg na ci wàllu politique mais bi muy dugg ci wàllu politique à un moment ñu gis maam Ngor am soxna soo xam ne député la nekk PDS ñëpp ne maam Ngor PDS la bokk d'ailleurs régime Macky Sall bi mu toogee gis nañu nga génnee benn benn single woy ko Karim wàdd di ci wax affaire de soxor single boobu lan moo ko sabab woon. non li tax ma woy ko Euh, Macky Sall dafa falu ñu ne dafa am ñu jël xaalisu senegal vingt cinq sénégalais ñoo toje mooni bi mais ñu téye ci benn nit muy Karim Wade loolu moom a révolutionné parce que man bu fekkee dañuy ñëpp a sàcc nañu téye ñëpp wala ñu bàyyi ñëpp donc loolu la way-way bi jàppale Karim Wade taxul mu nekk militant am sympathisant am laa gis naa lu ko métti. mais mais mais maam gis na nu nga dem ba ci biir aussi di dalaat Karim Wade. non non Karim Wade mosuma ko dal. musuma ko man Karim Wade faale ma ko ba koy dal di man su ma bëggee wax ku mu ku mu neex ci àddina mu la bëgg wax la ko Karim Wade musuma ko xas musuma ko wax dara ñu lu tax ma koy xas sama gaañ la musuma mënuma jàppale ni tey jii suba ma xas ko su comprendre la Macky Sall laa àndalul woon te li taxoon ànduma moom mooy dama gis nii dañuy jàpp ay sénégalais ni ñoo jël xaalis bi ñu téye ci benn nit muy Karim mais bi ma demee ba comprendre li tax ñu téye ko waxtaan président woo ma waxtaan ak man bëgg ma jàppale ko ma gis ni Sénégal a ko ñor moom la bëgg doxal ma jàppale ko. nga jàpp nga jàppale président mais est-ce que bi ngay toog pour jàppale ko moom teg nga ko ay condition pour jàppale ko. non man xam nga boo xoolee démb rek bi ñuy wax ci affaire u euh, euh, euh, kii nu mu tudd crime yi am ci dëkk bi. xam nga démb rek boo gisee ñu bëri ñu ngi dama attaqué ministre de l'intérieur parce que dama ni bu fekkee nii liñ ko dénk mënu ko yore nag na ko joxe ñu jox ko keneen. man nekkuma fii pour di cirage daal amul benn ministre u saal Sall wala Macky amul kenn ku may jox 1000 francs man dama yor sama liggéey di ko liggéey mais am naa droit faral ku ma neex Macky moom ma neex moom laa faral. <laughs> mais mais mais affaire de neex la wala affaire de liggéey la pour nga faral. non mais xam nga nit ki bu dee liggéey dañ ko war a wax waaw góor Sénégal boo jëloon yàlla indi ko fi ñu ñëw yàlla mooy président Sénégal tey da ngay gis benn Sénégalais commencé génn li mu defal Gambie defaluñu ko. yàlla moom li mu defal Gambie defaluñu ko. c'est que sénégalais moo neexul gérer dañu bëri dañu bëgg di am teraanga dañu bëgg di am xaalis te nanguwuñu liggéey dañuy xëy suba teel ba ngoon di ataay boo génnee fii rek léegi eh, grand dañ jox dara kenn nanguwul liggéey ba pare bëgg am moo ni tey jii lu ñuy bañ fii bu ñu demee feneen dañ koy def mais xanaa xamuloo jaay fruit dafa am xaalis booy yu bëri boo leen bëggoon tegloo fii di leen jaayloo fruit dañuy bañ. peut-être seen gel yee tax ñuy bañ. Ah non mais loolu nag gel nag xam gel kan la faa. Hmm. parce que xaalis amul xet boo yoree moo ni jigéen ñi ñëw voilà loolu moo am solo moo tax tey di nga conseil bi may jox suma rakk yi ak suma jarbaat di nga xam dina am occasion mun xool émission bi mooy métier amul bu tuuti même boo mënee defar ay égout te ci am teraanga demal nga def ko mais fii ñu bëri dañu di am moniteur ñu liggéey ok mais léegi ñu gis Mame Goor nekk artiste boo xam ne wax dëgg fa yàlla wax naa ko ci njëlbeen parce que man dama ko xam yàgg na mu nekk artiste engagé di waxkatu dëgg di kaas mais sénégale yëpp bi ma ne damay tourné ak Mame Goor émission dañ ma ne lu kenn ñemewut a wax maam Goor dina ko wax parce que dëgg la def nañu fi référendum ci wàllu deux mandats ñu ne président deux mandats la war a am walam lii président resement ci 31 décembre nee na dootu ci waxati parce que la mu wax waxi démbam jàpp na ne dara changé wu ci mais Mame Goor lan nga jàpp parce que am na ñu naan président war na def trois mandats ñi naan war na def deux en tant que nag artiste di porteur de voix sénégalais yëpp ne Mame Goor moom boo ko joxoon nu mu tëddee alcool jox ko euh, coton mu ko fii xasan mais fii xasan sénégalais yi bëgg nañu xam nga nga joxe sa sa point de vue par rapport ak loolu. xam nga man mënuma nettali géntu jàmbur man damay wax li ma xalaat parce que Macky Sall tey jii wax na ko ci fin d'année bi li mu wax dafa clair daf ni su ma nee damay def troisième mandat <laughs> pneu yi day tàkk ci dëkk bi côté bu ne. su ne defuma ko ay ministre am duñ ko liggéeyal te wax na dëgg parce que ñoo ñi ko bëgg a remplacer dafa bëri est-ce nit sénégalais moo bëgg fekk nit ku lok logam ba pare mu bëgg a dugal loxo bi ci biir géej mi lan ci la ñam kii li mu wax dafa clair moom nee na bu ñu tolloo ci ma wax ko dinaa leen ko wax waa léegi lu ñu bëgg mu wax leen ko par force man loolu mënu ma xam mënu ma nettali sama gént mu nettali gént jàmbur. mais mais yow en tant qu'artiste en tant qu'artiste non non non non boy en tant qu'artiste du porteur de voix sénégalais yi li Macky Sall wax Macky Sall la mais yow lañu soxla maam Ngor nga ne non Macky Sall bu defee deux mandats que ministre yi liggéey ak bañ a liggéey que mu dàq ki di deux mandats la war a def dem keneen ñëw loolu la sénégalais yi di xaar pour yow nga lan nga jàpp ni Macky ñaata deux mandats lay def. il n'est pas à son premier mandat de cinq ans. dugg bul dugg ci ah, ñëpp. non non non non man maa la mag fop dama bëgg nga dégg ma baax ma la mhm. kenn du ma wax loo lu ma warta wax. kon maam Ngor maam Ngor da ngay bañ ñu dàq la kon. fan lañ ma dàq man kenn joxuma xëy. ñëpp xam nañ ne da nga nekk ak Macky di liggéey ak moom sénégalais yi dañ la fan parce que maam Ngor waxkatu dëgg la. booy dama bëgg nga dégg moo baax xam nga télé bi laa jàkkaarloo. Macky Diall jox ma liggéey joxu ma salaire. waaw joxe lu ma dépense sama kër. mais am nga loolu. oui ma dama bëgg non non dëgër parce que tey boo bëggoon a gis Macky. fii ak ko. wala deux jours non respect la ñu seq man ak moom. c'est un sénégalais boo xam ne tey moom la fi yàlla teg mu jiite réew mi mais man mënuma lancu nit mun du ma ko lancati xam nga Macky Sall lu mu làkk làkkul pël làkkul soose làkkul bambara wolof la wax daf ni dañ ko laaj ci mandat yi muy def mu ne leen mandat bi duma ci wax waxoon naa ci waxaati ci la mu waxoon nee na leen moom du passé deux mandats du loolu la waxoon waaw léegi nit ku ne du ma def du ma passé deux mandats après nit ñi topp ko rek sañaxal ko mu ne leen eh su ma nee damay def beneen ñii du ñu liggéey su ma nee du ko def ponoy tàkk mais loolu dafa clair pourquoi ngeen bëgg a ñëw bëgg a wax loo nit yi luñ. ok donc euh, maam Ngor li mu wax dégg nañ ko maam Ngor la wuti woon Fatick. Fatick dama am doon nag sama xarit Matar Ba. yan lien nga am sama xarit la c'est mon ami. Matar moom lu yand si moom fanaan si man c'est mon ami. ñu gis Matar Ba aussi ministre liggéeykat dëgg la. non dama ni Macky bu amee jàmbaar liggéeykat tey jii Sénégal ñëpp ko mën a accepter muy pouvoir ak opposition. Matar Ba mooy ministre boo xam ne mën na jóge fi dox ba Sandaga kenn ko sànni xeer c'est le seul ministre au Sénégal boo xam ne mën naa jóge Maris dox ba sàndaga keroog bi ñu demee Fatick di ci matam bi këram la jóge dox ba stade te këram ak stade toll na ni fii ak Sandaga ah ñëpp à l'unanimité ñëpp topp ko man moom ànd nañ fu ne ci àddina bi tukki nañ ànd nañ en Europe ànd nañ fii Afrique fu ne il est partout c' est quelqu'un boo xam ni c' est un xam nga xam nga xam nga ministère euh, ministère euh, des sports ñaata fédération la boot presque quarante six fédération la boot ku nekk ak sa jikko ku nekk sa xalaat mhm. mataal ba maitriser ñëpp kenn du xuloo kenn du xeex ba pare le 20 incha allah mu wara a inaugurer stade olympique incha allah balaa deux mille vingt quatre ñu organiser coupe d' Afrique Sénégal mu war ko jël xam nga dafa nekk nit boo xam ni c' est quelqu' ah, boo xam ni ministre yëpp dañu war a jàng ci moom. Macky Sall man je mën naa ni Matar bala am ci koo xam ni man wóor na ma ni du ko jam paakati ginnaaw. dégg naa sax El Hadj ne moom mooy ministre bi nga xam ne foo ko woo ko. non waaw c' le meilleur. parce que dafa am benn esprit bi muy doxee. man ak moom dañuy toog di waxtaan ba deux heures trois heures du matin sama la. dafay wax chaque jour nii nit sa téléphone ñaar nga ci mën mën naa ko wala mënuma ko ku ko woo wax ko lu mu mën mën la mën naa ko bu dee lu mën lu mën la sëñ bi lii de mënuma ko mais li gën a bon ci àddina mooy ñu woola la téléphone doo jël Macky Sall boo xoolee yenn ministre mi ñoo ko gën a nekk star te tekkiwuñ dara nag sa comprendre la ministre la rek benn nomination la gënoo nit yi ay gënoo leen papa liggéey la te yow li ñi kii téer bi sax moo la gën a wóor métier ndax téer bi mën na métier am kenn du ko dàq mais ministre nomination dañuy xëy tëbal la donc soo nekkee ministre ñu dénk la xam nga tey boo xoolee Macky Sall dafa gagné pouvoir bi war a def cinq ans de pouvoir am ay programme ci biir quatorze millions de sénégalais mu tànn ci trente personnes def leen ay ministres tànn presque une centaine de personnes def leen ay DG mais tey jii boo xoolee opposition Sénégal presque dañuy wax Sénégal amatul opposition société civile bi moo fi nekk di wax ay ñoo lànk courant bi lii mais soo gisee ñooñu tey jii ñu am contenu mën a wax nit ñi déglu leen parce que au moins ñoom ñu ngi def bruit mais mag Sall ñi mu fal ñëpp man dama jàpp ne ay noonam lañ ay noonam rek la fal parce que dalay fal jàpp la jox la teraanga doo créer manifestation euh, euh, ministère bi mu la jox yow doo jéem a xam nga tey ku mel ni Cheikh Ba xam nga dañu dindi Aliou indi ko CDC Sénégal yu bëri xamuñu woon CDC lan lay tekki mais Cheikh Ba bi mu ko yoree mu ngi commencé organiser ay manifestation def ay forum xam ñu ne CDC mooy nga xam ni tey jii xaalis bi nga xam ni moom la ñu tribunal di àtte ay nit ñu war ko fay ay nit te ñu kii ko ñu jël xaalis bi dénk ko CDC wala genre xaalis bu ñu confisqué comme tey ji Karim Wade li ñu ko ji ñu ne dañu dem ci compte am jël nañ fa 3 milliards indi nañ ko yóbbu ko caisse de dépôt xaalis bi li muy tëdd foofu gis ay sénégalais xam ni c'est des investisseurs mu lebalaat leen ko teg ci pourcentage 2 pour cent 100000 bu nekk ñu ne da nga ci war a teg mil xam nga bu ñu la ko lebalee il faut nga liggéey pour mën a rembourser. muy liggéey kooku muy au moins léegi sénégalais ñu ngi comprendre la mooy CDC. Matar ba tey ji boo xoolee week-end bi passé ni mu fiy jógee nii dem Fatick xam yi avant coupe de maires bi téer yi fa dëkk dañu ñaw jaaykatu gerte jaay ñi defar glace jaay ñi defar ay jus jaay dëkk bi yëngatu mais yow dañ lay fal ministre doo def benn doo def dara xam nga tey jii ministre Macky Sall rek mën nañu occuper terrain bi ba kenn du gis lu opposition bi def wala ñoo lànk wala dara mais dañoo ñu ci dañoo amul jom. est-ce que la jàppale wu ñu président de la république est-ce que la c'est la vérité jàppale wuñ ko. kon kon yow da ngay fekk si Moustapha Cissé Lo ci ci waxam. non pas Cissé man amul ku may roy di xool ci moom damay def sama analyse calculer Macky Sall laa faral. Mhm. mais ministre mi moom jàppale wuñ ko. ñu ci bëri waxuma ñëpp nag. ñu ci bëri du ma wax ñëpp quoi parce que tamit loo gis am na exception. tey ji un gars Matar ba mu ngi liggéey man tey mën naa ko sede liggéey ka la tey ji xam nga gis naa ne Amadou Ba xam nga mooy le ministre des affaires étrangères gis nga ko mu il est toujours dans dans entre avions yeeg yooyu ànd président ak am na ñoo xam ne ñu ngi job am na ay directeur am yoo xam ne ñu job comme Cheikh Ba ni ma la ko waxee ay xam nga ay genre ñoom Mame Boye Diao ñu ngi su ko chaque weekend ñu wane ko mu denk nekk daa jënd ay nu mu tudd ay ambulance yóbbu foofu créer ay affaires yi xam nga jàppale cyclisme fii de mais ñe koo woo doo doo ko jot du amuñu liggéeyuñu ah insécurité bi ne gax ci dëkk bi ñu rey nit ñi comme ay wañ mais lu tax tax nga jékki-jékki ne ministre de l'intérieur bu fekkee li mu yore mënu ko nañ ko fi jëlee. waa non c'est man contre ma Aly Ngouille jàpp naa ni liggéeykat la jàmbaar la mais réew sécurité parce que man mënuma d'accord Kaolack li fa ñu ne ay bandi dañ dugg ci kër pendant deux heures de temps di xeex ak waa kër gi ba bakken rot fa police ñëwul du question photo police la waxuma photo police la mais normalement war nañ mën di artu nit ñi ku bëgg dugg si dëkk bi suñu frontières yi ñu xool ko boo fiy dugg ñu xam ñaata jour nga fi war a def xam nga bu ñu xool ni yow sa casier judiciaire dëkk bi nga jóge ndax reykatu nit nga wala sàcc nga wala góor jigéen nga wala xam nga il faut ñu xool lu xew si dëkk bi mais waaxu rek ñoo parce que Sénégal dama lay Sénégal dafa am pétrole te pétrole bi dañ ko war a exploiter dans quelques années. Mhm. tey jii ñëpp ñi nga xam ne ay hommes d'affaires lañ ak truand yeeg sàcc yeeg def ko tu ñaaw teef yëpp fi mu toll nii Sénégal lañ dëgmal parce que nañuy daw ñëw teel a toog assiégé wu toog assiégé dëkk bi pour xool fu bagage génn ñu mën a am dara léegi nag fi mu toll nii les force de sécurité ñoo ko war a xeex suñu militaires yi nekk Ndakaaru ci camp militaire yi di añ di reer di ndekk di tëdd di nelaw ban njëriñ lañ am si dëkk bi dëkk bi amul guerre amul xeex nañ de créer ay checkpoint di xool affaire militaire yi lekk lan la fi lekk ceeb ak tëdd nelaw nañ jóg. defuñ dara defuñ dara. ñu bàyyi la nga tàggatoo. merci beaucoup kontaan maa ngi bu ñu fa waxee nag loo xam ni xam nga jubluñ ci lu lu ñaawa ah. donc ñun dañuy wax rek pour wax dëgg bi nu mu demee. muy nekk artiste boo xam ne vraiment ndaanaan la artiste engagé li ko ñor mooy Sénégal li ko ñor mooy Rufisque ga mu dëkk li ko ñor aussi mooy sénégalais yi nekk ci jàmm lépp tegu ci yoon. donc Mame Goor Diazaka de son vrai nom Vox Art ñëwoon seet si ko ci émission à travers Vox TV Equivox TV maa ngi leen di gërëm di leen sant naan leen merci beaucoup à la prochaine ciao. Si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.